nee na li ci des mooy di leen wax sama mbégte rek nga xam ne ni ma ko bégee noo nii la ko doomi sëriñ fallu yëpp bégee muy muy bisub sëriñ fallu bi ñëw mboolem ñi nga xam ne ñëw nañ ci jàpp ne bisub sëriñ fallu bisub sëriñ fallu am na lu leen ci war nee na loolu rekk leen ci indi nee na loolu nag rëy na ci mbooleem kuy njabootu sëriñ Fallou ndax njabootu sëriñ Fallou yi amuñu lu dul sëriñ Fallou kon nag koo xam ne bis bi ñëw na nga bàyyi la nga war a doxi la nga waroon a doxi say soxlaak say yitteeg yëpp nga bàyyi ko ngir ñëw rek màggal si bis bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm sëriñ bi nee na mi ngi leen di gërëm bu baax ci loolu ñépp a ñëw tariixa yeeg chrétien yi ak chrétien yi ñoom ñëpp ñëw nañu ngir bëgg sëriñ fallu rek lislaam nag ak diine ngor daf cee baax ñi fi ñëw ñëpp ngor ngor bokk na ci li leen fi indi ndax nekk gi fi sëriñ Fallu nekkoon baax lool di seq nit ñi lu baax di leen ñaanal ngir ñu am jàmm bi fi sëriñ bi jógeek léegi léegi mu mat ñeent fukki at waaye loolu fettewuñ ko ba léegi fa am na ci boobu am na ci ñoo xam sax boobu juddooguñu waaye ñim fi fekkoon yàgg nañ leen ko wax gis nañ fi itam yoo xam ne sëñ Fallu moo ko def te ñoom fekkuñu ko fi waaye gis nañ loolu te sëriñ fallu dafay ko doy waar yàlla dafa defoon ci moom ci làmmiñam lu mu mas a wax rek yàlla jàppale ko ca fekk ko ca moo tax na am jooju ñuy wax naan du am tuddee ko sëriñ fallu looloo tax dafa daan def lu mu wax rek na dana am yàlla fekk ko ca amal ko lum na du amit yàlla fekk ko ca loola du am loolu yàllaa ko ko mayoon li taxoon yàlla may ko ko it xamoon na ne sëriñ Fallu du fekk mukk lu war a am mu ne du am du fekk mukk lu wurta am mu ne a am looloo tax yàlla mayoon ko loolu sëriñ fallu lim fi nekk lépp musta gis lu baax lu war a am mu xam ne aw làmmiñam lu tudd yàlla def ko tax mu ne du am musu koo def lu wërta amit moo xam ne lu làmmiñam yi laal yàlla def ko te wóor na ko ni lii wërta am mu ne dana am loolu lépp suñ fallu musu koo def looloo tax yàlla sunu borom mayoon ko loolu may gi ku ko yàlla mayoon nag baax na ndax yàlla xamoon na ni bu ko defee ci moom dana ko ci liggéeyal sëriñ Fallu ak nekkam lépp liggéeyal boromam rekk la woon kon nag yooyu yëpp nit ñi fàttewuñu ko te ngor nag moo tax fàttewuñu ko moo tax bu bisam ñëwee ñu mel ci nii def nañ ci lu baax lu nekk ci waajtaay bi ak fekke si ko ak def ko xarit def ko waay moo tax bisam ñëw ngeen mel ci nii ngeen mel sëriñ Fàllu Mbàkke nag ku ko def waay def ko xarit ku la gis rek war naa gis ci yow melo woo xam ne day xam ne xaritub sëriñ Fàllu nii la war a mel ku doon xaritu sëriñ Fàllu di soppeem foo dem war ngaa yóbbaale yar ak teggin ak yërmande ak lawet di dimbali nit ñi ngir ñu am jàmm ndax nit ñi kat jaam ñi yàlla def leen a bind ba noppi nag bëgg leen kon nag kon nag jaam yi ku leen di wormal di leen teral di leen màggal yàlla nga ko séqal de moo tax ku leen di toroxalit yàlla nga ko séqal kon nag su ngeen demee lu ngeen baaxoon rek na ngeen ko yokk dolli ko bu baax a baax a baax bu leen teqatal kenn bu leen ñaawal kenn bu leen jéem a daane kenn nit ñi de ku leen di warmal di leen teral di leen dimbale di leen sutural bee boobu ngay séentu ndimbalul yàlla ci yow ci sa bopp loolu daal moom laa bëgg su ngeen demee ngeen sax ci rek dimbali nit ñi rek lawet ci ñoom rek bu leen di tàngoor ci ñoom nee na am na nit ñoo xam ne dañoo mën a tàngoor ci nit ñi lool ak aw tàngoor rek la ñuy woon nit ñi di leen toroxal ak di leen woyofal ak di woon nit ki ne ko doo dara ngir bëgg a yëkkati sa bopp rek leneen loolu yéen ñi nga xam ne da ngeen a def sëriñ Fallu muy seen waay ñëpp la war sax waaye rawatina sax koo xam ne dafa wax ne sëriñ Fallu waaye ma loolu moom waru ko moom doon waaye sëriñ Fallu muy sa xarit nga bëgg ko bam jaral la coono yu mel ni yii ndax tukki bu sorikat jóge ndakaaru ñëw fii wala jóge ndar ñëw fii wala Tamba ak Casamance ak fu ne toogaay boobu rek toogaay bu metti la te xat te boo ñëwee it toogaay yi nga fiy toog coono rek la loolu koo xam ne rek sëriñ Fallou jaral na la ko kon def nga ko waaye de waaye sëriñ Fallou daal lawet rek sëñ Fallou dafa lawetoon bari woon yërmande kon nag ku ko waayoo def ko xarit def ko sëriñ war ngaa xool ci meloom ku am xarit kat na melowoo noona nga war a mel noo boo ko munta melit nga di ko roy ne